asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp noo ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar di leen nuyoo fii ci umul xuraa fii ci pàkkub maam Cheikh Ibrahima Fall waaye fii ci biir daara Jazbul Murid mooy daara ji nga xam ne sëti maam Cheikh Ibrahima faal yi ñu àndandoo ci ndigalal Serigne Cheikh Jëmm Fall di ko taxawal fii eh, ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall waaye tamit fàttaliku tey ji bis bi nga xam ne ci la maam Cheikh Ibrahima Fall amewoon ngërëm ci sëriñ bi mu tombé fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm muy ngërëm loolu ko sëriñ bi gërëmoon ca Daaru Salaam sëriñ Bassirou Fall mi nga xamante ne bii tey moom la yàlla dogal mu di ko taxaw at mu jot ci kanamu ay kilifaam ya nga xam ne ñoo ko joxoon ndigali muy sëriñ Modou Falilou Fall ñu fekk si ko tey nag ànd ak moom bis bi di sàkku rek ngërëm ci ngërëm loole yàlla nañu sama borom defal ngërëm eh, sunu kilifa gu baax gii fi teew muy sëñ Ahmadou Rafahil Mbacke moom Cheikh Mouhamadal Fadal eh, di jàmbaar di borom xam-xam di koo xamante ne bii àdduna bépp ñëpp ko bàyyi xel ci xam-xam ak ci soññee yi di ñaan sunu borom doolu ko fa yàggal bu baax a baax te mooy ko wér waaye mu ñëw nag ngeen nemmee ko si waa daayira jës bu waa daara jës bu murit ngir eh, seet si daara ji ñu ci am mbégte bu baax a baax tey ñaan yàlla sun borom guddal aw fanam te wéral ay cëram bu baax a baax ba lim yéenee liggéeyal maam lépp mu liggéey ko ci barkeb Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu fas yéene rek eh, teg ko sunu micro mu dimbali ñu baaxee ñu lenn ci eh, ñàkkul nag yëg-yëg wala gis-gis bu am ci liggéey bu tedd bi nga xam ne njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall taxawu nañ ko muy daara ji waaye tamit li nga xamante ni bi sama borom dogal na tey ñu di ko fi dabu muy bisu ngërëm boobu itam sëriñ bi baaxee ñu ci ok bisimilah asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki di jëfe ndigal rek xam naa ne ku mel ne suñ moomu ndaw mi waxtaan fi moom ci. taarix lu jafe lay doon waaye suñuy tànk daal may sa koo tënk rek ci ñaari tomb benn tomb bu njëkk bi mooy fedd li kóllëre kóllëre nag suñu borom nee na ci alxuraan lu mat a sàmm la ndax lu mu yàgg-yàgg yàlla danañu taaj nañu ana nu ngeen ca defoon donte moo nu gën a xam wa awfu bi ahdillahi ida ahadtum wala tanqudu aymana bada tawkidiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li gën ci li leen di defal ay wayjuram rawatina bu fi nekkatut mu neex ko lool fa mu nekk mooy mu jokkal ko ay kóllëreem li may wax nag ñu bari xam na ko ndax tur yi nga xam ne moom nga ma wooye eh, doonte yées naa ko lool xam naa ne ki ñuy tudd di ma tudd moom Sëriñ mi nga xam ne ci moom la jaar digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall du lees di laajati ndax ku ko nawoon la ku ko faale woon la daa dem fa moom lu bari te wolof day wax ne njeexaat moom boo gisee kay jeexaat delloo fa loxoom rek dafa fore dara kon kóllëre googee dal moo tax ñu bàyyi suñuy yitte ni ko ñëpp defe ñëw ci bés bi la ca dolliku it mooy barab bii nga xam ne fi nga nu fekk ñu def ko daara te daara suñ maam Cheikh mii léegi eh, am na lu am solo lum mu ci wax mu ne fu ñuy tabaxee nit la loolu lu wér la jamono bii ñu ko fa defee nag dafa tase ak ndigalul Serigne Touba ndax Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko kàddu yi jëkk ci ab jataayam xam-xam la ca wax te xam-xam ku ko tudd daara kon day mel ne euh, ba mu koy wax te fekk sañ na ko wax booba fekkoon na njabootu Cheikh Ibrahima Fall ñoom jatu ni soccet ndax soccet moom buñ ne jatu leen fekk na mu jekk bu yàgg ba muy laata ñëw fekk na daara ji sori bañ tàmbalee jàngale kon boog budul woon ab xew-xew budul woon lu ñuy màggal bis bi maam Cheikh Ibrahima Fall amee woon gërëm it Serigne Touba mi bëgg ñu taxawal ay daara fépp ba mu ne lu mu am dana ko ci def ba tudd ci ab lim loo xam ne ku ko amoon it sa xel xelam mën a dem feneen. waaye bu fekkee njaboot gi taxawal daara ju ne mel ba mu tàmbali te lañ ca yéene ëpp na li amagun loolu jaroon na jóg ñëw seet si ndax bari na lool bu ñu koy seet mënees naa dugg kër Cheikh Ibra la ñu ci nees di bëgge ak nees di jàppe ak nees di tënkoo ci kala war a digal su la digalee nga ne ca coow waaw kon daal ci gàttal kàddu yooyu lañ amoon luñ ci doon wax nit nag bu xolam seddee dana néew lool ci nit ñi la mu bëgg a wax lépp mu wax ko wala na mu bëgg a doxale lépp mu doxale na waaye daal suñu xol sedd na guy liggéey bi ak ni mu demee te daa mel ne tànqaluñ ci nit ñi ci ay ca leen ay ca leen waaye ku ñëw ku fi ñëw da gis ne liggéeyu pas-pas dëgg dëgg dëgg feeñ na fi ak yéene yal na ko yàlla àggale te ña fiy génne ëllëg it na doon ñu yàlla di xiir ci ne coow ci ay ndigalam te yàlla buñ leen seen fuñ leen di tare kon daal kàddu yi lañ amoon yuñ ci sànni sànni wuñ ko sax waaye dañ ko ci barkeloo di ñaan ñu fekk ko ay ati at te at mu ci nekk suñu boroom dimbalenu ba nu mën koo fekk te ànd ak tal ak wér di leen yóbbante ab nuyoo ci suñ jëwriñ ji nga xam ne mooy taxaw liggéey bi sëriñ Bassirou Fall alxuraan ba ba muy àgg ca sëriñ Cheikh Jëmb Fall ñu fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñëpp ñu si bari ñu ci tolloo ñun ay at taxasoo nañ lool di di daje fu bari di waxtaane yu bari waaw kon daal noo ngi sant bu baax ñi nga xam ne it tey la yàlla dogal gisante bi it ñi ngi fas kóllëre gi nga xam ne moom la bàyyi ak maam ya fasante woon te daa ko dox wasalaamaaleykum wa rahmatullah